sëñ bi Clédor Sène maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi lay maa ngi lay fay di nuyu waa auditeurs Rewmi FM yëpp. yow yaay njiital Clair Vision gindi askan wi bokk tamit ci ñu sos mouvement bi di le peuple waaw lan moo waral le peuple ak fan ngeen jëm. waaw euh, mouvement bi ñu wax le peuple euh, ñu ngi ko ñu ngi ko sanc démb ñu ngi ko fësal démb te li ko waral mooy dictature bi nga xam ne moom moo nekk di déroulé wu fii Sénégal ak noot gi ñuy noot askanu Sénégal. moo tax nitu dëgg valeur euh, bu Abdou Karim Gueye pour la république bu professeur Cheikh euh, Omar Diagne euh, CUSEMS authentique bu Dame Mbodj one million marche bu Assane Diouf ak Madina Dieng association Majid te coordonnateur am Cheikh Diop représenté depuis depuis Touba <coughs> ñu ànd taxawal benn kuréel bu ñu tuddee le peuple kuréel la boo xam ne nag ay euh, association de de de société civile ay mouvement citoyen euh, euh, la la dajale te dañ koy yaatal bépp sénégalais boo xam ne xeex injustice ñor na la taxawu démocratie ñor na la défendre justice ñor na la donc loolu li ko sabab mooy dossier Ousmane Sonko bi nga xam ne dafa bëri loo xam ne daf ci lënt te lépp day wane ni pexe la pour pour ndërmeel benn adversaire politique pour fàggaagal benn adversaire politique xeetu pratique yooyu nag lañ dul bàyyi mu jàll parce que bu jàllee suñu paree ci Sonko ci ñun ñii lañ jëm donc dëkk warut a doxee noonu parce que fii dëkku démocratie la démocratie bu ñu xeex ay ati ati ati at ba am ay at yi kon bu ñu seetaan président Macky Sall di ko ndërmeel di di bunu xataal nit ñi di fitnaal nit ñi ci lu dul dëgg te ñoom dañuy jalgati yoon. lan nga yaakaar ni mouvement bi mun na ko indi euh, ci bii biile xeex ndax am na ñu leen fi jiitu ay mouvement FRAPP France dégage ay Y'en ak yeneen ba sax député opposition bi ñu ngi ci xeex bi boobu ak léegi te gisuñu luñ ci soppi. xam nga mouvement bi su doon suñu sago sax lu ñu àgg ci xeex parce que araftu araftu euh, mën na mën na tere xeex am. parce que hmm. bu fekkee président Macky Sall nitu jàmm la ànd na dina xam ni li mu nas nii sooy na plan bi ñi ko ko nasal bokk ñi ko nas bokk euh, euh, daanu nañu ñu dellu ci gannaaw bu boobaa jàmm ne ñooy mais li indi ay toujours ñoom ñoo koy sooke parce que ñoom ñoo dem fekk député boo xam ne dafa am immunité parlementaire am ñu ni dañ koy jàpp kooku it woo ay nitam ay nitam défendre ko alkaati yeeg euh, waa Pastef fi nekk fay xeex léegi lan moo indi xeex boobu li alkaati yi def ni dañuy jàpp koo xam ni mbalaanu kiiraayam moo ko aar te loolu jalgati yoon la nit ñi ñëw défendre mbalaanu kiiraayam ñooñu am nañ ci droit kon léegi ñooñu pourquoi ñu leen di topp naan leen incitation à la violence ak incitation à l'insurrection ak yooyu parce que ñoom ñooy yore seen texte ñoo seen loi ñoo koy ñoo koy appliqué ku leen neex ñooy bindal ku leen neex parce que fii la Aliou Dembourou Sow menacé Sénégalais yëpp ak jaasem ni alpulaar na ñu jël seen jaas yi defante koog ñëpp ñi nga xam ne dañu contre troisième ba noppi fal fi ab ab ab alpulaar Euh, ba tudd daaw Daouda Diallo kooku ba mu koy def euh, ci discours public la ko def donc flagrant délit la donc amul mbalaanu kiiraay tout député qu'il était donc euh, procureur musu ko woo te ba noppi dafa indi affaire boo deekul te xeet apologie ethniciste hmm. te loolu lu lu doy waar la ci réew te kooku ñu ngi ko bàyyi ci sagom ba ab ministre di ko di ko layal ci ay plateau de télévision Abdou Karim Fofana dinaan li mu def dara nekku ci culture al et cetera di jéem a expliquer loolu donc kooku moom mën na woote violence mën na woo askanam ñu ñu ñu defante kook yeneen xeet maanaam yeneen yeneen yeneen waaso euh, euh, alors que ki nga xam ni dafa am leader am boo xam ne mbalaanu kiraay moo ko aar warul mën a aar leader am boobu am mbalaanu kiraay te police ni da koy jël si kon ñoom ñi ñi violé loi bëgg a jël si député bu am mbalaanu kiraay ñoo ñoo fa indi xew-xew yooyu ba ay Auchan Total ñu taal leen ci ba mu indi ay problème ba ñu jàpp ci ay nit di leen torturer di leen brimer ba di leen laaj sax ndax yéen séeréer ngeen wala joolaa ngeen xam nga yooyu ay ay ay dérapage yu grave grave loo xam ni régime ci régime bi kese kese kese kese lañ ko gisee parce que yéen a ngi fàttaliku ku jigéen kooku xaw ma naka ba penda ba mm-hmm. fii la nekk saaga saaga saaga askanu lëmm mais euh, géwelu Macky Sall boobu nu mu tuddati euh, nu mu tuddati waaye Farba Farba Farba Ngom mm. mais moo dem ni xale bi du fanaan du fanaan du fanaan du fanaan ci kaso bi dañ ko obligé génne ci jamono joo xam ni beneen woykat euh, dafa dafa dafa dafa traité Macky Sall de unk rek unk unk la ko wax de. ñu hmm. tëj ko kaso léegi mënuñu génnee Penda Ba bàyyi ko foofu ñu mujj leen génnee ñoom ñaar kooku elle a dit son salut à Penda Ba donc yu mel noonu mooy justice bu tëddeewul njaaxaanaay kese justice boo xam ne ay homme politique ñoom ñoo lay dawal maanaam ñu ñu jàpp ab Penda Ba benn géwélu Macky Sall ñëw ni du fanaan ci kaso bi ñu génnee ko te procureur ju juge platé ko noonu la réew mi doxee moo tax union des magistrats du Sénégal kuréelu magistrats yi ëmb Sénégal génnee nañu benn téere di ñaawlu li nguur di di di di jëfandikoo justice di dugalee loxoom ci doxalinu justice dañ koy ñaawlu gis nañ fi ay juges yu démissionné justice bu tëddeewul njaaxaanaay nag ay rek lay indi ak taalum réew parce que kenn du ko wóolu nit ñi dañuy fajal seen bopp moo tax duñu créer le peuple pour taxawal suñu bopp parce que ñun ñi woon on fait confiance à la justice de notre pays yëpp dañ leen sacrifier muy muy Karim Wade muy xalifa Sall koo jox mu ne man daal wóolu naa sama justice yow maa ngi ñoom ñëpp dañ leen éliminer politiquement injustement kon ñun nag tolluwuñu foofu dañuy fagaru ba nga xam ni euh, àq ak yelleef pour doomu aadama yi dañ koy respecté suñu ay liberté individuelle dañ koy respecté su laaj su laajee jàmbaarloo ñu jàmbaarloo loolu moo tax ñu créé kuréel boobu pour organiser wu ci niveau quartier yi créer fa ay comité de résistance pour ñu toog xaar parce que ñii fu ñu jëmee wax ko de façon claire te ñoom ñu ngi teg seen ay actes de façon claire fii la Macky Sall mi nga xam ne moo am majorité assemblée nationale jékki-jékki ni léegi loi d'urgence ak euh, euh, état de siège da koy téyel boppam ci loxoom. rocc ko ci assemblée nationale bi nga xam ne moo fa majoritaire pour lan. mais yow yaa ngi woote résistance maanaam askan wi takku te xam nga ni loolu tamit euh, lu muy jur tamit ci wàllub yoon euh, du ñàkk euh, mu am ay jeexital foo teg boobu la sañ-sañ. waaw xam nga boo boo nekkee ci dëgg doo ci bañ li la ci li ci mën a fekk wala kaanu murran la ñuy wax doo calculer ni mën mën nañ la cee rey mën nañ la cee jàpp mën nañ la cee torturer mën nañ la cee laagool loolu yëpp xaj na ci nag te ñun dañ ko xam ci leer mais dañu engagé suñu responsabilité parce que euh, euh, xuppukaay boobu muy yoon seen kaso boobu kese ñu am di ko xuppee seen alkaati yi ñu am dañu ko xuppee di ñu dóor a gaañ ak tëj kaso bu fekkee ni loolu moo ñuy tiital ba ñu toog jàpp suñu ñàmbur loolu mooy nooteel day exercer wu suñu kaw nooteel nag dañ koy bañ te mën na jur lu nekk fu mu yem neex dañu pare pour jàkkaarloog ñi pour jàmmaarloog ñi pour fokkati ci ñoom suñu àq ak suñu yelleef te mën na àgg ba fokkati ñoom suñu réew. Eh, yan moyen ngeen am yan jumtukaay ngir jàmmaarloo ak ñoom. la bi ngay wax moyen populaire parce que dafa am sax lu ñuy wax immunité populaire am na ñoo xam ne askan bi ñoo leen di aaral seen bopp ba kenn du leen laal. loolu bu ko nguur gi comprendre Macky Sall je crois que sax comprendre ko parce que dégg naa 31 décembre naan am na ñoo xam ne bu leen arrêté. dëkk bi day yëngu xaw ma deret day tuuru xaw ma nangam nangam nangam yooyu du du ci dugg. Hmm. donc immunité populaire mooy loolu. donc askan wi bu organisé wu au niveau de de de toutes les villes de de tout le Sénégal de tous les quartiers euh, doole boobu amul ku ko mën a ku ko mën a dékku bu organisé wu. Euh, te ñu ngi koy gis euh, muy xew ci yeneen dëkk yi li ci mujj mooy Mali Mali mobilisé wu nañu mais xeexuñu. Hmm. loolu résistance la. léegi nag bu fekkoon ni dañu daloon seen kaw léegi boobaa xeex lay doon bu fekkoon ni dañu leen fekk fa ay deux millions de Maliens rassemblés ñu ni armée dal leen seen kaw boobu boobaa leneen beneen affaire la mais li ñu mën foofu lu ko raw mën nañ ko fii mais loolu nag dañ koy organiser te bu laajee jàmbaarloo it ñu jàmbaarloo parce que dañuy agressé dañuy agressé ñu gis ni ñi jiitee kuréel gi ngeen sos di le peuple ñu bëri jaar nañu prison ci kon ay xeetu woote yi nga def bokk na ci Assane Diouf Abdoul Karim Gueye ñu gën koo xam ci xurum xaak yow mi sax ci sa wàllu bopp ak ñeneen xanaa da ngeen namaat rek dellu foofu wala bi yoon dafa am feen ko teg. xam nga affaire bi dafa dépassé ay jëmm doomu aadama ak seen liberté. Mhm. ak seen intérêt. parce que man li gën ci man. li gën ci Abdou Karim mi nga xam ne dafa feebar. li gën ci euh, nu mu tudd ci Assane Assane Diouf nga xam ni moom tànkam dañ ko endommagé prison te bu yàggul la fa jóge mooy mu am jàmm boppam ñun bu ñu neexoon nekk suñu teranga ak suñu donkaas yi ku nekk li jën ci sa bopp. Hmm. donc loolu dafa dépassé ay jëmmi doomu aadama ak ay liberté doomu aadama parce que ñun dañu dañu mettre suñu liberté ak suñu jëmm en jeu mettre suñu sécurité en pour njëriñu ñëpp y compris euh, yow mi may poser question pour seen njëriñ ñëpp. Hmm. kon tey jii euh, euh, lu metti lu mel ni prison du lu ñuy mbébét wala lu ñuy namm mais lu ñuy teg ci balance la ak loo xam ne euh, moom mooy sa àq ak ba xool bu la ci gënal donc nit ku nekk yow mënoo am bëgg bëgg dara ba noppi du la jaral dara boo bëggee dara il faut mu am lu mu la jaral bu fekkee ni dee mën na la ci fekk xayrun xayrun sax mooy tant mieux c'est pas su fekkee ni dee mën na la ci fekk euh, muy noonu bu fekkee ni prison mën na la ci fekk muy noonu mais loolu bu mu la bu la bu la bu tënk ba sa àq ak sa yelleef doo ko laaj wala doo ko foqati ci jamono boo xam ne yow yaa ngi dund nooteel parce que nit ñi fii quand même leen di teg dafa metti da ngay ñoo xam ne yow da nga tooñ seen leader euh, am immunité nga ñëw ni da nga leen di jàpp ñooñu ñëw taxaw seen buntu kër leader nga xeex ñoom leen dóor ay bal en caoutchouc yooyu ay jàppante am fa nga utal monter leen dossier dossier dossier dossier criminel dossier correctionnel atteinte à la sûreté de l'État incitation à l'insurrection incitation à la révolte ak yooyu loolu nag moo fi war a jeex moo tax ñun ñuy woote loolu comme procureur loolu lay jàppaate ñun loolu la ñuy woote léegi comme moom day jàppaate na na feesal kaso yi mais loolu rek la. Hmm. affaire bi du question xaru du question ñàkk ànd ak sago ñun lépp lu ñuy def xam nañ ko parce que boo xoolee kuréel boobu euh, maa ngi ci maa ngi ci fàttalimaale sax ku mel ni Mansour nga xam ni kooku borom xam-xam la. Euh, maa ngi ci fàttalimaale ku mel ni professeur Cheikh Omar Diagne kooku it borom xam-xam la ñun li ñuy def xam nañ ko Assane Diouf ku ànd ak sagoom la euh, ku am xel la ku am ku am am xalaat la. donc ñun li ñuy def xam nañ ko te dinañ ko gën a yaatal ba ñu xam ne ñun ñii caaxaanuñu parce que nguur gi ci boppam ñoom ñoo gën a xam fi ñu jëm ak ñoom parce que ñun xam nañu fi ñu bëgg fi ñu fi ñu bëgg a jëmee. Mm-hmm. kon ñun dañuy waajal suñu bopp ba bi yoon euh, euh, du ñu bekk parce que ñoom waajal nañu seen bopp depuis deux mille dix neuf ci parrainage bi euh, suréquipé seen ay forces de l'ordre parce que am na lu ñu doon séntu mu xew te amul tey jii. seen jumtuwaay yooyu la ñuy nekk di di exercer ci kaw euh, euh, euh, militant Sonko yi seen seen bal en kaw yeeg yooyu am na yeneen ñuy denc yoo xam ne yàkkamti nañ ko génne ñoom dañu yàkkamti jàmbaarloog ñu léegi ñun nag dañuy toog ba ñu écrasé ñu duñ ko def gis ngeen ci premier couvre-feu bi ñuy génnee ay bum di dóor nit ñeeg ay lu nekk di génnee nit ñi seen oto di leen di leen toroxal mel ni askan bi dafa am lu mu joteeg force de l'ordre ji léegi nag ñun dañuy toog noonu rek di subir non la ñuy organiser ba nga xam ne bés bu ñu imposer lu lu ay ay parce que kenn xamul kañ la ñuy dem élection. Hmm. léegi ratissé nañu Casamance. Euh, fiefu fu Sonko. après ñu jàpp Sonko. léegi après ñu bëgg a jàpp Sonko. Hmm. waaw léegi loolu buñ ko réussir léegi kan kan moo fi nekk en face du régime. zéro opposition mënut a am. Hmm. donc il faut ñi nga xam ne. nekk ñu ci parti politique yi. nekk ay ay ay jàmbur toog seen et puis il faut que sénégalais yëpp. jeunes yëpp xam ni xeex bi seen xeex la. xeex bi du xeexu Clédor du xeexu Dame Mbodj du xeexu Assane Diouf xeexu ñëpp la donc ñun suñu àq ak suñu yelleef ñoo ko war a défendre ñun ñoo war a arrêter ce régime dictatorial parce que Sénégal dëkku liberté la dëkku démocratie la 2019 la ñu waro euh, renouveler mandat maire yi ñu ngi ci 2021 ba léegi kenn waxagul lu ci jëm ñu wax ay waxu couple élection ñu wax ay waxu troisième mandat kenn xamul ci ban régime la ñu nekk te ñoom ñuy jalgati yoon nu mu leen neexee lépp lu assemblée bi am président Macky Sall jël na ko téye ko ci loxoom. loi d'habilitation mille milliards état d'urgence état de siège lu muy waajal lu muy doyee police ak gendarmerie ci loxoom te assemblée bi mu am fa majorité léegi ñun tam lu ñu waajal suñu bopp xam fu mu jëm ak ñun. Mm. loolu rek boo koy def. loo mm-hmm. ci am loo ci làq wax bi amatul nëbbatu. Mm-hmm. xamul tax amatul nëbbatu parce que Aliou Dembourou Sow bi muy ba ñu koy défendre. kon man tey ji procureur mënu ma woo. ci incitation à la violence wala incitation à l'insurrection parce que Doumbourou Sow mu ngi fi bu woow Doumbourou Sow mënu maa woo kon ñun dañ koy wax pour mu leer moom daf ñu sax dimbali parce que moo ñu may ñu wax discours bu leer bi. Hmm. nga xam ne dañuy organiser jeunes yi euh, de façon visible sans ay làqatu sans ay nëbbatu ci au niveau de chaque quartier bu taxaw jotee ñu taxaw ñu xam ne ñii ñoo joxe moo door bi ñii ñoo yëkkati xeex bi ñu ngi nii lu ñuy def ci ñun ñu def ko ci ñun mu jeex. Euh, lu mooy politique bi ak li ngeen di wax wàllub démocratie gis nañ tamit mbir mi lu ko sooxee euh, wàllub kon la euh, moo ci gën a fës. loolu lan la ci yoonu tamit kilifa diine yi ndax yenn saa ñu dégg leen saa yu xeetu tuumal yi jibee. waaw man ànduma ci ñuy interpeller kilifa diine yi ci ñu wax ci loolu parce que ñi interpeller kilifa diine yi sax. ñoom ci danger bi am ci fàggaagal adversaire politique bi nga xam ne dañ koy fexe montel ay dossier peut-être ci côté boobu la ñuy intervenir man duma intervenir ci côté kilifa diine bu fekkoon ni nit ñi dañu gëm ni affaire euh, euh, euh, affaire affaire siif lu lu lu firndewu la kon xoolal ñëpp tekk la ñuy def di xool fu wanante di mujjee ak yi gëtam mais ci premier jour bi mais la accusation yooyu parce que 4-4 euh, moo jël si xale bi xale bi moo woote ñu jël si ko fa mbir mi amee ay nit ak fa dëkk nit ak jabaram a nga fa ak yeneen employé yu liggéey seede yi daaneel nañu loolu rapport médical bi ñu teg bët ñun nee na sëy amu fa rapport amu fa dara amu fa oto bi ko yóbbu avocat ngi ci docteur ngi ci kon ñii dañu waajaloon li ñuy waaj ñu dem ba ci biir ñu ne léegi toppatuñu Ousmane Sonko alxam la ñuy topp x loolu du incohérence waaw ah, sëñ bi sañ ba mbir mi éclaté nag ba léegi ñu nemmeeku tamit li ci bees mooy ay xeetu xoqatal ak i menace de mort yu ñuy kon yëkkati léegi nag bu fekkente ne nag eh, eh, dogu ngeen ngir eh, défendre Ousmane Sonko di ko layal lu tax keneen mënul am tamit sañ-sañ layal aji Sarr wala sax nguur gi ndaxte moom tamit dañ ko ci jam baraamu tuuma. non ba ñu ñu lool. di de la war a doon. kii wax jëm ni kii wax jëm ne li ci warul am kay mooy ay saaga. ak ay menaces de parce que loolu moom euh, fu mu mënti jóge kenn mënu ko rafet lu dul baax te hmm. loolu du ñun mouvement citoyen ñoo ko war a lijjanti mais mbirum yoon la yoon moo ko war a lijjanti. Hmm. donc euh, man tey jii bu ñu ma woon de mort damay porter plainte wala ma bàyyi mu sedd. Hmm. kon boobu su ma porter plainte ci loxo yoon lay nekk moom moo koy lijjanti. kon loolu du loo xam ne ba dañoo bañ ku défendre aji Sarr parce que ñun sax la ñu bëgg aji saar ci boppam ñu def euh, pétition wala ay tag xale yi jeunes yi. Mm-hmm. pour ñu génnee ko fu mu nekk parce que kenn kenn mënu ko gis papaam mënu ko gis mu ngi jóge ba dëkk ba moom moo mën a woo papaam papaam mënu ko parce que numéro inconnu lay lay lay wootee te nee ñu avocat boobu moo ko fat moo ko fal moo ko moo ko fat. Mm-hmm. kenn mënu ko gis moom et a pas les moyens de se prendre en charge ñu téye ko ko ñëpp pour kenn bañ a accéder ci moom au contraire ñun dañ koy sax défendre. parce que dañ koy utiliser te liñ koy sant bu fekkee ni euh, sottiwul moom ci boppam mën nañ ko faagaagal donc pour sécurité euh, on rend l'État responsable de la sécurité de Adja Sarr nguur gi lépp lu dal Adja Sarr seen mu mënu ci génn parce que boobu ba tey ki porte plainte kenn mënu ko teg bët te mu ngi ci ñoom ñu fat yow yaay njiital mouvement Claire Vision gindi askan wi bokk ci ñu sos mouvement bii di la peuple Clédor Sène Rewmi FM mu ngi lay gërëm. jërëjëf.